chers collègues, la parole est à notre collègue Astundiaï Oulimata Mané, la suivante. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Justice, nous sommes venus avec ses collaborateurs, nous sommes euh, collègues députés. monsieur le ministre ñu lay remercier encore une fois parce que keroog nag ñun député yi presque à nivité def nañu plaidé nañu à notre à la faveur de notre collègue Birame Souleye euh, te gis nañu jéego yi nga xam ne moom ngeen ci def ñu ngi leen di remercier bu baax di fàttali député nag balaa ñoo waxati ñu jël suñu làmmeñ di ko xoolaat juróom-ñaari yoon parce que wax nag dafa garaaw bu xasee ba génn doo ko mun a maîtriser di wax nag ne monsieur le ministre Euh, projet de loi yi ñu fi indi je pense que dinañ ko voter parce que li may wax rek réew moom waxtaan mooy indi jàmm te waxtaan mooy jur lépp jaloog nag comme li may wax rek ñaari dialogue consécutif moom mënta am benn dialogue bi def nañ ko ñi nga xam ne xam nañ luy état et l'état c'est du sérieux ñëwoon nañ toog waxtaan ba consensus yu fort yi génn fa ñu ni ko tey assemblée nationale ñu war ko voter kon dinañ ko voter pour permettre ñu nga xam ne tey dañu nekkoon si ay jafe-jafe ñu mun a bokkaat si li nga xam ne mooy laal président Macky Sall wu kenn suñu dëkk dafa am ay loi ay règlement yu ñu bind mu leer nañ ku def lii lii moo la siy fekk ku def lii nag ba loolu fekk la si wax dëgg yàlla da ngay da ngay gëm yàlla parce que nag damay bokk far force da ngay wax ak la la teree bokk président Macky def boo terewul bokk fenn kenn terewul bokk kenn si élection ku sàggan nag wax dëgg yàlla ba sa tubéy wala sa làmmeñ tere laa bokk nga bugg a ñëw teg ko si kaw Macky Sall président Macky Sall ne ko dafa force da ngay bokk da ngay wax lu la neex parce que on est dans un état de droit di wax nag ne parrainage bii sant yàlla waxoon nañ ne nañ ko waxtaanee waat toogaat nañ waxtaanee ko gën nañ koo ñoŋal waa nag su électorat yokkee parrainage ñu wàññi ko kañ c'est tout à fait normal mu yegg nombre boobu dañ ne ku am soit nga am 13 députés wala nga am 120 maires wala nga am nombre de parrainage bi nga xam ne mooy parrainage citoyen waaye ku ko amul nag mënoo doon président nga dem toog mënoo am parrainage ba pare bugg ne nga jiite suñu réew mi mënut nekk parce que suñ ki toogoon tey 40 candidats déjà déclarés te li wóor te si kanam la jëm bu ñu ko continuer loolu bu ñu xëyoon suba ba ngoon di voté te loolu c'est une catastrophe dans un pays démocratique loolu mënut a nekk ñu ngi ñu ngi leen di félicité si li nga xam ne moom ngeen def ku mun a bokk def pa mun a am parrainage bokk ku mun ta am parrainage comme li nga xam ne moom mooy euh, li may wax léegi li nga xam ne complot bi ñu fiy wax damay wax euh, monsieur le ministre waxoon naa ko keroog commission dama la koy waxaat ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaso bii toj ay yëfu jaamur ñi nga xam ne ñoo ne ci kaso bii doon taal terre bi ñi nga xam ne ñoo ne ci kaso bii doon attaquer des installations électriques ñooñu duñu ay politique ay terroriste lañ terroriste nag da nga koy acté par teg textes terroristes ñoom nga leen di acté parce que doo mënuñoo nit di yàqal nit di yàqal ay doomu aadama nga ne ñooñu nañ leen jël def leen traité leen comme ay politique ñoom duñu ay politique leneen moo leen yëkkati woon monsieur le ministre nag dañ lay yóbbantuwaat si président ne ko gàcce ngaalaama parce que nag jaamu pexam yàlla ak dogalam ñun suñu amoon lu ñu neex day bokk te nag sénégalais ku ne xam ne ne ba léegi nag ay xol mu ngi ci biir xolam ñu ngi ci biir xoli sénégalais yi waaye nag mu am grandeur bëgg Sénégal parce que nag dañ ne Sénégal liir la ñii di xëcc fii ñii di xëcc fii moom ma ko bëgg nag mu bàyyee leen ko ndax moo jur lii ba kon moom moo bëgg Sénégal kon ñu ngi koy wax gàcce ngaalaama kontaan nañu si lu ñu li mu def si sigil na Sénégal sigil Afrique devant le monde entier kon di wax rek ne monsieur le ministre di la waxaat di la yóbbantiwaat encore une fois di wax ne élection yii ñu jëm ku munta bokk amul négocier te beneen dialogue nag amul ñun rek représenté wuñ peuple bi ñun rek les députés du ñooy représenté peuple bi c'est vrai que ñun ñooy représenté bi mais ñun nekkuñu peuple bi loolu laa bëggoon wax peuple bi nag ñoo ñu fal ñu ñëw fii waaye dafa am ay limite am na fu muy tool peuple bi la ñuy laaj ñi nga xam ne ñoo waxtaan nag ba juboo société civile am fi ñeneen ak ñeneen ak fi kon nag def leen attention si ñi nga xam ne ñi may wax ñu soi-disant professeur saa yu ñëwee di leen dugal si yoo xam ne naka su dul noonu seen njàng bënnagut bés bu seen njàng bënnee nag ñu mun leen conseil ngeen di def jërëjëf monsieur le ministre merci beaucoup merci cher collègue La parole est à notre collègue Oulimata Sidibé, euh, Adijatou Thiam, la suivante. Euh, bonjour tout le monde. Euh, monsieur le ministre, euh, maa ngi lay nuyu ak say naataango ñi nga àndal ñëpp di leen dalal bu baax a baax. Avant tout, je tenais à vous remercier. Euh, sur la fête de notre président du groupe parlementaire Birame Souleye Diop qui a su nous qui a su nous écouter euh, lors no commission commissions di la si gërëm bu baax di la si sant di profiter aussi di gërëm ñëpp ñi nga xam ne euh, impliqué wu nañ si rawatina le président aussi nos président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ñoom Abdou Wang ainsi que ñeneen ñi ñu ngi leen di remercier yéen ñëpp parce que tey ñëpp xam nañ ne ko ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mais politique moo andi ñuy am ay divergence Euh, monsieur le ministre pour revenir si li nga xam ne moo ñu fi andi tey monsieur le ministre vraiment damay poser la question à à quand vous allez arrêter à toucher notre constitution monsieur le ministre ñëpp xam nañ ne que tey constitution bi bu ñu demee ba heure bi ñu di ko laal c'est parce que le son excellence le président Macky Sall da koo bëgg parce que pourquoi euh, aujourd'hui xam nañu à sept mois de son départ euh, Macky Sall dafay bëgg a réviser constitution bi pour lan lépp bu ngeen paree ngeen wax ma man dama am li ma fi andi voilà bu dee moo leen fi andi man loolu andiwu ma fi je vous respecte quand vous parlez je vous écoute kon su may wax ni ma déglu même bu dente ne vous devez souffrir en il faut qu'on se respecte nit ku nekk da xam li la andi fii même su lu may wax bu leen neexul da ngeen di nopp ngeen dégg bu ngeen ñëwee après ngeen tontu loolu mooy li nga xam ne mooy cër euh, monsieur le ministre donc je disais tout à l'heure euh, parrainage bi man du ci sori parce que on ne peut une chose et son contraire parrainage bi dañ ko fi wax waxaat ko kon aujourd'hui du ñu toog tey à sept mois du départ du président euh, Macky Sall ñu ñëw ne dañuy laaj laalaat constitution pour amaat yeneen yu ñu euh, si yu ñu siy changé donc man je crois que perte de temps la d'autant plus que am na yeneen choses yi nga xam ne moo gën a préoccupant mooy par exemple su ñu jàppee tey euh, les prisonniers les détenus politiques ñi nga xam ne ñu ngi si biir prison bi monsieur le ministre ñuy souffrir tey ñu bàyyi leen foofu y des étudiants qui sont là-bas y a des élèves qui sont là monsieur le ministre wax dëggaaneex yàlla war nga ci mën a def quelque chose pour ñu mën leen bàyyi ñu delluwaat ñu dem surtout que ñi xam ne ay élèves lañu. am na ñi nga xam ne ay père de famille lañu ñu ngi foofu dañu am ay njaboot seen ginnaaw donc ñooñu dañ leen war a seetaan ñu bàyyi leen les tortures qui sont dans les prisons monsieur monsieur le ministre loolu ëpp na war nañ ko seetaan parce que sama parce que vous êtes un détenu politique ñu permettre ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir prison ñu di leen di leen torturer vraiment ça vraiment loolu gënaluñu loolu war nga ci waxaat monsieur le ministre su ma ñëwee tey si affaire de de de de Ousmane Sonko euh, monsieur le ministre waxoon naa ko keroog dama koy waxaat dëgg la euh, ñëpp xam nañ ne que Ousmane Sonko moo andi révision constitution yi mais monsieur le ministre il faut savoir que Ousmane Sonko dafa nekk ku nga xam ne doomu réew mi la gisuma fenn fenn fenn fu mu taxee fu mu tilimee on l'a cherché un peu partout mënuñu ko mënuñu ko jàpp fenn moo tax ñu ñëw taxal ko si affaire de viol te loolu tey dañuy sant yàlla. parce que lan Ousmane Sonko tey yàllaa ko setal tey ñu taxoon fii di wax naan Ousmane Sonko dafa violé dafa violé le jour ji bu ñu ko jugé yàlla moo ko setal kon tey ñi daan wax yëpp la ñu téye seen lamiñ yi ñu noppi parce que tey xam nañ ne lii complot politique la te moom daf cee set wicc donc nag beneen bi ma mën a wax mooy euh, monsieur le ministre ñoom ñoo taxaw fi naan l'article 87 l'article 87 je vous rappelle que ne que ñun nous sommes au courant ne du dara c'est votre intérêt personnel moo tax tey le président de la république mu retiré ko loolu ñu ñëpp xam nañ ko donc bu leen wax ne que leneen ak leneen ñun loolu yëpp on est au courant de ça Ousmane Sonko nag damay waxaat ne Ousmane Sonko dafa set si ndey set si bàyyi set si lépp lu muy dem kenn mënalu ko dara fii muy neex muy naqari Ousmane Sonko day bokk man loolu laa gëm te ñeneen loolu lañ parce que lan population moo porté sa candidature te amul leneen li nga xam ne dafay tax Ousmane Sonko ñu mën ko téye amul gisuma luñ koy téye ñun dañoo gëm ne Ousmane Sonko day bokk tey day bokk suba te dina bokk. dina bokk Macky Sall nag ñëpp xam nañ ne pare na yéen nag bu ngeen amoon benn intelligence di ngeen xam ne que yéen seen avenir doom yi moo nekk en jeu parce que Macky Sall mënul nekk fele nar a dem mu ñëw tey di leen këll kële tey buum seen baat fu ko neex mu diri leen kon nag loolu yéen waroon ngeen am benn conscience bi nga xam ne que war ngeen xam ne que Macky Sall pare na kon yéen seen avenir doome mais il faut pas passer à votre propre intérêt pour xam ne que yéen fàtte ngeen population ñun nous sommes les députés du peuple kon tey population moo tax ñu toog fi kon l' intérêt du peuple ñun moom lañ ci porté pas notre propre intérêt mais nous savons que yéen seen propre intérêt moo leen fi tax a toog keroog dégg naa fi benn mag kilifa man dama yaakaar ni kilifa boo nekkee si biir assemblée nationale da war a joxe benn benn benn kii bu kii bu rafet yaa may dégg mais bu mënuma comprendre mag bi nga xam ne taxaw dinaan Ousmane Sonko dañ ko war a jëli mag da ngay defar mag du yàq mag da ngay defar mag du yàq mais am na fi si biir assemblée ay mag yi nga xam ne yàqaa leen tax a jóg ku ko ñeme nag si yéen ñii gaddu seen lam yi di dem leen ngeen jëli Ousmane La parole est à notre collègue Khadijatou Thiam. Fanta Sall la suivante. Fanta Sall la suivante. Merci, Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. messieurs les ministres mesdames et messieurs les collaborateurs des ministres honorables députés nuyu naa leen yéen ñëpp monsieur le ministre nous félicitons son excellence le président de la république Macky Sall pour sa décision historique de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2024 monsieur le ministre le projet de révision de l'article 29 de la constitution soumis à notre examen fait partie des conclusions du dialogue national en application de la constitution qui dispose que les, que les partis politiques et les coalitions de partis politiques concourent à l'expression des suffrages, il s'avère donc nécessaire de procéder à un filtre, d'où l'importance du parrainage rendu désormais optionnel en plus du parrainage citoyen. Le texte vise à instituer un parrainage institutionnel en les rendant plus souples et permettant d'avoir des élections inclusives tout en ayant des filtres permettant de contrôler le nombre de candidats à l'élection Cette modification étant impersonnelle, ne vise donc aucun candidat et ne peut être contre un candidat. donc monsieur le ministre damay bamtuwaat ak li ma wax ci wolof dañuy sant son excellence le président de la république ndax nit ñi dañu yaakaar ne benn volonté populaire bu nekk à côté moo tax mu ne du nekk président non non du dem élection non non moom prés Sénégal moo ko ëppal doole Sénégal la gëm Sénégal la bëgg moo tax mu ne moom du dem élection du ma dem élection nag lii ci dialogue la jóge dialogue ba ñi bëggoon dem dialogue ñoo dem dialogue yi ñu jël ay conclusion mais nit ki boo demee dialogue boo jëlee ay conclusion mais conclusion yooyu ci respect da nga war a ñëwaat assemblée mu ñëw dénk ko waa assemblée ñun ñu war a jàngat ci dialogue bi ñu war a xool résultat yi war a xool est-ce li ñu indil fii baax na wala baaxul ñun nag ñu ne baax na ndax dans ce pays là n'importe qui warul nekk président de la république fii li fi am mooy man de gisuma fi tur li ñu fi indil gisuma diw day bokk wala diw bokk man gisuma fi benn tur kon li am ba des mooy ñu dem dellu ci suñu base yi dem liggéey et c'est important que nit ñi def différence entre taxaw fii di xasante ak wax li am ku war a nekk da président da ngay nekk président dem na day dem yoonam mais ki fii nekk aussi ñu ko jox Sénégal duñ ko jox n'importe qui dañ koy jox koo xam ne xam nañ ko sénégalais la et puis day respecté nga xam ne day respecté engagement yi lii fii nii daf koy respecté pour ñu mën a dem voter ko mais taxaw fii naan day bokk man depuis ñu ñëw assemblée diw day bokk diw du bokk rek moo fi nekk mais diw day bokk diw di bokk mais lii moo koy atte léegi nag xam nañ kan mooy est-ce que wax nañ ci diw day dem tudd ñu fi kenn li ñu def mooy indi tey assemblée nationale loo xam ne bi ñun député yi ñoo ko war a jàng xoolaat bu baax nag li ñuy jàng teg ko aussi ci ci respect nit ki mën nga far fu la neex mais nañ ko teg ci respect Sénégal na ñun ñëpp ñoo ko bokk ku fi taal Sénégal xamal ne koo fi rey lu ñu aussi xamal ne tu tu seras responsable à vie parce que député dafa war am nu mu war a taxawee taxawaay bi mooy bu ñu ñëwee assemblée am na lu ñu fi indi nañ ko def et puis ñu def ko dans le respect man am na lu ma gëmul nekk di xasante bu ñu génnee ci biti bëgg mel ni ay doomu ndey la munul nekk lu munul nekk munul nekk on a qu'à aller à l'essentiel bandiraɓe min gatti assemblée hannde addi min ɗo ko wadde voté oɗo loi mo ngannduɗa ko assise to dialogue présidentiel yimɓe jano toon mbi ma article 29 constitution waɗe révisé ndaare no président no wawi seɗede taw ko président mo ganduɗa wax dëgg yalla feccere sénégal foof ko ɗum jaaɓi président wi joni haɗan ƴettude quoi que ce soit gaccen adda ɗum assemblé national député ji ɗi daara après ɓe mbaɗa voté loi o tawi ɓe jaaɓi wadde voté ɓe mbaɗa voté minen noon min mbaɗa voté loi wonno tan min voté loi par ce rende sénégal andude sénégal enen foof ndendi ɗum article momin gaddana ɗo loi o ala ɗo inde winda ɗo kaari tawete ko winɗa ɗo ko honi parrainage o waɗirte ha ganduɗa hande kala gonɗo président de la république taw vraiment koye jaam gonduɗa koye jaam gonirɗa yanoɓe dialogue ɓe noon jaaɓi yaade dialogue ɓe jahani ɓe noon jahani ko ɓen tan tigi haala haala ko ganduɗa gassata neɗɗo a wawa yidde hunde e, e, e, e contraire muɗum a wawa wiide mbeɗe yiɗi mbiya kadi mi tawetake ɗo watte ɗo donc gatten hakkillaji meɗen ganden sénégal ene foof dendi ɗum président par ce que ɓe o annduno kanko sénégal ɓuranimo o wimi yata élection par ce mi tawetake sénégal ɗo huɓɓe he yimɓe noon sénégal huɓɓe yo gandu sénégal huɓɓarade ala ko huɓɓata ɗum élection wiya yimɓe yo jaha pewnoya listiji mumen jaha mbaɗoya parene gadda programme ji ganduɗa sénégalais ji mbaɗum wadde voté on jarama merci beaucoup merci cher collègue la parole est à notre collègue euh, Fanta Sall elle est absente Raki Diallo